إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين mbokk julit yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi dellusi waat ak yéen ci suñu daje bi ñu tudde keppaaru weeru koor wala sous l'ombre du ramadan ñu fas yéene bés bu nekk fàttali konte ak yéen benn bind boo xamee ne nii dafa bokk ci ponk yi tax ñu dégg suñu diine suñu boroom aadawoo woon na bu weeru koor jotee mu wàccee yonent yàlla jibril bokk ca malaaka ya mu wàcc ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk di nafar téere bi yàlla bi di alquraanul karim baba la nga xamee ni nii mooy weeru kooru jeex ci bis bu jëkk weeru kooru démb bi ñu ngi doon waxtaan ak yéen ci li nga xam ne mooy ñoŋal weer wi ñu nekk ca mooy atte ya ñuy taxaw ba suñu kooru baax yal nañu yàlla subhanahu wa taala nangul tey nag mbokk julit ñu nar a waxtaani benn kàddu kàddu googe nga xam ni moom moo taxoon yàlla bind asamaan ak suuf kàddu googe nga xam ni moom la suñu boroom tuddi mooy kàddu ragal yàlla mooy kalimatu taqwa kàddu googe suñu boroom tuddi ne mooy al urwatul wusqa mooy njàpp gu dëgër gi nga xam ne ku ca jàpp jàpp nga fa wóor kàddu googu suñu boroom tuddee shahaadatul xaq nga xam ne mooy seede bi gën a màgg bu doomu aadama yi seede ci kaw suuf kàddu googu nga xam ne mooy daawatul xaq moom mooy woote dëgg bi mooy la gën a màgg ca la doomu aadama woote jëme ca kàddu googu mooy teqale diggante lislaam aku kéeféer kàddu googee moom la yonent moom la yone yàlla yónni woon boo li mu yonent yoo xam ne mas na leen a yónni kàddu googee mbokk julit dañuy gis ne moo tax yàlla bind nit ñi ak jinne yi kàddu googee moo taxawal asamaan yi ak suuf bis buñ demee ba kenn waxatu ko fi yàlla mabb asamaan ak suuf mbokk kàddu googee mooy lan mooy la suñu boroom jalla wa ala di wax ni wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana faabudun suñu boroom mu ne musuma yónni benn yonent bu la jiitu yow yonent yàlla muhammad ndax moom kat yonent amul gannaawam moom mooy yonent bi mujj ci yonent yi doonte ne it du nekk di judduwaat ci kaw suuf di fi dundaat di am ak njaboot comme ni ko lenn ci ñoo xam ni seytaane taaral na loolu seen biir xol bañ gëm ko nga la waay yow jullit bi may dégg bul bokk ci ñooñu abadan weddi ko ba fa weddi yem yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo mujj ci ay yonentam keroog ba mu faatoo suñu boroom dogal ñu denc ko ca xabroom boobee du fa génn lu dul ne bisu pénc dafa taxaw suñu boroom mu ne kon mboole mi yonent li ma wax yi ci ñoom mooy laa ilaha illa ana faabudun ca mooy kàddu laa ilaha illa allah lool rekk a taxoon yàlla yónni yonent yi lan moo tax nag julli julli daa ñëw ngir dëgëral laa ilaha illa allah koor daa ñëw ngir nekk meññeentu laa ilaha illallah aj màkk ñëw ngir nekk meññeentu laa ilaha illallah koo xam ne laa ilaha illallah wéerul sa biir xol yàlla soxlawul say julli soxlawul say koor soxlaalu la dara dara lu mën a doon mbokk kon lii nekk mbir boo xam ne nii jàpp naa ne yéen ñépp kon xam ngeen lan mooy dayo boobe mbokk laa ilaha illallah lu muy firi mooy kenn yeyoowul ñu koy jaamu ci kaw suuf wala kaw asamaan ku dul yàlla jalla wa ala doonte ne li ñuy jaamu moom kenn mënu ko natt soo demoon Inde am na ñuy jaamu ay nag soo demoon Thaïlande am na ñuy jaamu ay golo soo wëree ci àdduna bi ñëwal Sénégal am na ñuy jaamu xabru yi am na ñuy jaamu guy yeeg daqaar yi li ñuy jaamu moom bari na waaye yow jullit da ngay gëm ni amul kenn amul lenn lu yeyoo ñu koy jaamu illallah xanaa ku dul yàlla mi nga xam ne mooy ki moom asamaan ak suuf yàlla bi nga xam ne moo ñu bind bind lépp mbokk jullit dañuy gis ne kàddug laa ilaha illallah googu ca la yàlla subhanahu wa taala bind doomu aadama yi fitratallahi lati fatara annaasa alayha doomu aadama bu mu mën a doon yëg ne ne yàlla mooy yàllay kenn ki nga xam ni moom rekk a yàlla waaye malheureusement fa muy yaroo ak fañ koy yare fa la ñuy yàqe pas-pasam moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan wax ne kullu mawludin yuladu ala alfitra fa inna abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaanihi nee na amul kenn kuy judd lu dul sa xol sell na ci nangu ne amug yàlla gi ca nangu ne yàlla rekk yàlla amma nag milieu ba ngay nekk rawatina say waajur ñooy yàq pas-pas yi ba doomu aadama bi wëlbatiku jaar yoonu yahud yay bokkaale ak seen boroom wala yoonu nasaraan yay bokkaale ak seen boroom wala yoonu athéisme yi nga xam ne dañuy bokkaale ak la nga xam ne mooy seen borom mbokk jullit xamal ni laa ilaha illallah boobee moo taxoon yàlla sant ay yonentam ñuy jihaat loolu mooy musal doomu aadama bi deretam alalam bakkanam ki saxal laa ilaha illallah kenn amatul droit di ko rayeti amma ki saxalul laa ilaha illallah loolee sa deret ak sa bakkan heure bu charte ya daje dana dagan ci ñu tuur ko mbokk jullit nañu xam nag ni tey jii lépp loo xam ne dal na jullit ñi ca la nga xamee ni nii mooy ak suufe goo xamee ni nii àdduna bi tey kaddu ya nga xam ne moo koy doxal duñ ca dégg lu bari kaddu jullit ñi la nga xamee ni nii moo ko waral mooy dañoo am un milliard et demi de musulmans waaye ñooñu ñacca comprendre laa ilaha illallah doon lu néewa néewa néew amma ña cay wax laa ilaha illallah ñoom ñépp daanaka ñi ngi wax laa ilaha illallah waaye la ëpp ca ñoom comprendre ñu ko ñaka ca jot a comprendre it dunduñu ko kon loolu lim ñuy jàngal yow boo bëggee texe yow jullit en tant que jullit yow góor ak jigéen bi may dégg la nga xam ne it moo mënoon a texeel umma bi yépp mooy ñu jéem a dégg lan mooy laa ilaha illa allah mooy kenn yeyoowul ñu koy jaamu loolee na doon alal la mbokk alal bis bu doxee sa digganteeg jaamu yàlla yaa ngi koy jaamu loolee nguur la mbokk ak nguur bu demee ba dox sa digganteeg jaamu yàlla yaa ngi koy jaamu loolee lum mën a doon moom la borom bi di wax naan afara ayta man ittaxasa ilahahu hawaahu wa adallahu llahu ala ilm xoolal ki nga xam ne bànneexu bakkanam mooy yàllaam am na koo xam ne nii moom daa jàpp ne mankat ka ma gëm mooy imam caam lu mu am moom laa bëgg la yàlla yor soxluwuma ko imaam caa mooy sama yaakaar àdduna mooy sama yaakaar allaaxira ci moom luy sukkandiku ci moom lay giñ mbokkoo loolu mooy bànneexu bakkan ba nekk ca moom am na keneen koo xam ne boo tuddee imaam cam mu ne accam waaye moom it am na imaam saw boo xam ne nii fa kee teg imaam cam fa la teg imaam saw loolu nag mbokk mooy ñàkk dégg kaddu laa ilaha illa allah amul kenn ko yeyoo ñu koy jaamu di sukkandiku ci moom di ko yaakaar di jàpp ne mën na indi njëriñ wala mën na teggi lor kudul yàlla jalla wa ala lii mbokk ki nga xam ne saxal na ko day kii mooy ka yàlla subhanahu wa taala gërëm la nga xamee ñi ni mooy doxalinam mbokk laa ilaha illallah nit ñi ci dégg biñ koy dégg ca la seeni dund di wuute complètement doomu aadama bi na nga gën a comprendre laa ilaha illallah ca la sa nekkin ci kaw suuf di gën a dëppoog ngërëmal yàlla jalla wa ala tey jii bu ñu xoolee nañu dem ca li ñuy tuddee xare Uhud xare Uhud mboolem ña fa demoon xam nañ laa ilaha illallah waaye nag seen diggin ak seenu dogu doon na lu ca wuute looloo tax ba yonent bi alayhi salaam teg na armée bi daa di am ñu mu jël teg leen ca kaw montagne ba ne leen yéen kët lu mën a xew bu leen wàcc tànk joxuma leen ndigal ah loolu kon muy ndigal lu jóge ca yonent yàlla te yàlla moomu moo ne woon atiu llah wa atiu rasul toppal leen ma yàlla topp sama yonent waaye ñoom bañ demee ba gis ne yàlla dimbali na yonent bi ak i saxaabaam ñu dàq yéeféer ya ñu ne ah nañ daw ngir ñu jëkkante jot ci li nga xamee ni nii moom la ñuy jële ci yéeféer yi ca booba it dañuy def bépp yéeféer boo not loo ko fekkeel ci ay arme yow yaa ko moom kon ñu daal di safaanoo ak laa ilaha illallah ndax laa ilaha illallah mooy kenn yeewul ñu koy jaamu ko dul yàlla kon ñun ay jaami yàlla lañu yàlla moomu nee nañu topp ndigalu yonent bi te yonent bi nee woon na bu leen wàcc lu dul ma jox leen ndigal ñoom bànneexu àdduna ak bëgg-bëgg àdduna tax ñu safaanoo ak loolu looloo tax ba yàlla wëlbati situation ba mayaat yéefar yi kàttan ñu ñëw dàq mboolem ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu lay won ne it ne musiba lu yem ci bopp boroom yéen mbokk jullit yi loolu it mu lay won it ci ci ne doomu aadama bi sa dogu ci laa ilaha illallah fam la mën a yóbbu waaye it sa laa ilaha illallah bu naxas ana fan la la mën a yóbbu ndax ñooñee ka leen jiite woon mooy abdullah ibnu jubayr bi gaa yi di xëccoo ne dañuy dem dana leen hee yéen ngi def lu laganul xam leen ne yonent bi nee na woon bu ñu wàcc lu dul moo ñu jox ndigal waaye gars yi ne ah waaye yéefar yi daw nañu daal di wàcc ca loolu it mooy ñàkk dégg laa ilaha illallah mbokk laa ilaha illallah mooy ngay topp yàlla topp yonent yàlla sa xel doog a ñëw waaye laa ilaha illallah du jiital sa xel ci digal yàlla ak yonent yàlla ab julit lépp lu yàlla dégle lépp lu yonent yàlla dégle day jël am xelam teg fee def lu yàlla ak yonent yi digle ba pare doogo indi am xelam su ko xel mi nangoo xayrun su ko xel mi nanguwul loolu moom beneen affaire la tey jii da ngay gis yàlla nee na bu la ngeen julli na ngeen jàpp njàpp mooy lan mooy raxas leen seen gémmiñ seen bakkan seen kanam seen loxo seeni tànk masaa sa bopp xel ñëwee naa lii de moom lu rafet la lii day digle ak laab rawatina fitna yi corona bii nga xam ni médecin yi bokk na li ñuy sant mooy bari leen di raxas seen loxo kon xel nangu na loolu waaw ñu yàlla nag waxaat ne bu ndox amul jëlal say loxo teg ci suuf masaa sa kanam masaa say loxo léegi xel ñëw waaw ndax xel mën ngaa comprendre lu tax nit ki di julli ànd ak janaba amul ndox wala amul njàpp di jël ay loxoom di tekki suuf di raay ci kanamam di ko pëndal ndax xel mën na comprendre loolu déedéet xel mënul comprendre loolu waaye yow jullit nooy def jullit na ngay def mooy laa ilaha illa allah kenn yu yoowul ñu koy jaamu ku dul yàlla jaamu bi yàlla la yàlla lu mu digle julli jot na nee na ndox amul tiimal damay tiim la ca des xel yaa xam boo déggee yaa xam boo déggul yaa xam loolu moo tax ba dañ naan keroog xare Uhud ah ndamu lislaam la doonte ne defetu jullit ñi déggul maana laa ilaha illallah waaye biir jullit ñooñee nañ ca dem ci koo xamee ni nii moom laa ilaha illallah comprendre na ko à cent pour cent kooku mi ngi tudd Anas ibnu Nadr doon bàyyi ci ki nga xam ne mooy Anas ibnu Malik mi nga xam ne mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam Anas ibnu Nadr ba nga xam ne nii xare ba daw na ki ñu koy nettali mooy Saad ibnu Muaz nee na Saad saat mu ne dama dajeeg anas mi ngi jël fi muy dugal jaasim ci mbaru jaasi bi xot ci mbar mi gàddu jaasi bi riir dem di dabi yéeféer yi ma ne ko waa anas foo jëm mu ne ilal jannati wa rabbil kaaba maa ngi jëm ca aljanna saat na ko déet anas bul dem yow rek boo demee dañ lay rey mu ne ko mu ne ko saat bàyyi ma wallahi xetu ajjana mi ngi may xeeñ fi ma toog nii di jóge ci gannaaw montagne Uhud daa di daw dugg ci biir yéeféer yi di caw di caw di caw ba nga xamee ni nii xare ba jeex na ba ñuy wër ana ñi dee woon ca xare ba kaka xàmmee mooy benn sëram ca jaaro bu mu takkoon fekk jam nañ ko lu jege juróom ñetti fukki jam jam jam nañ ko ko ci ay jaasi ak i xeej avant muy daanu radiyallahu anhu mbokk kooku benn misaal bu mag la ci ñi nga xam ne laa ilaha illallah saxoon na ci seen biir xol ñu xam ne ñun jaami yàlla lañu su yàlla xesee ba diglee jeex na lan moo ca topp mooy la yàlla jalla wa ala di wax amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminuun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wa qaalu samicna wa ataana gufraanaka rabbana wa ilayka almasir suñu borom nee na yonent yàlla bi day moog julit ñi nga xam ne comprendre nañu bokk nañ gëm yàlla ki malaakaam ki téeréem gëm alaxira seen wax du lenn lu dul sami'na wa ata'na yàlla dégg nañ say ndigal topp nañ say ndigal ndigal bu jóge ci yàlla xalaat amuti ci ndigal bu jóge ci yonent yàlla xalaat amuti ci suñu borom subhanahu wa taala mu ne wa ma kaana li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyara min amrihim wa man yasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina yellul jullit am ndigal bu jóge ci yàlla am ndigal bu jóge ci yonent yàlla ba pare yow ngay xalaat ndax man damay defam duma def suñu borom nag nee ne kii mooy yàlla ak yonentam ku mel nii day réer na réer goo xam ne gu biir gu sori la mi ngi noonu mbokk jullit suñu delloo ca la nga xam ne nii mooy mbokk doxalinu sahabatul kiram dañuy fekk ne laa ilaha illa allah yóbbu woon na leen ci loo xam ni day yéeme ci yii nan la ko nit di mën a defee kaay ma jëlal la ca benn màgget anas ibnu nadr bi ma la joxoon misaal la ca ña nga xame ne ni ñoom ñooy mag ñooy ñooy jeunes ya xoolal màgget bi ñu tuddee umaru ibnul jamuux mi nga xame ni nii yàlla dogaloon na keroog ba ñuy dem xare Uhud am na ñeenti doom yu góor yoo xam ne ñépp ay jàmbaar lañu takk nañu seeni gànnaay yi fas yéene ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu génnee fekk seen bàyyi sol ay yére de geeram daa di taxaw non seulement mag la waaye benn tànk ba dafa yàq woon mu daal di la fañ doom yi na ko waaw déet papa foo jëm mu ne wallahi ànd ak yonent bi jihaad doom yi na ko déet papa doo dem bàyyil ñu jihaati mu ne déet bàyyi leen ma xale yi rocceeku dem ci yonenti yàlla bi daa dina waaye waxal sunu baay moom kat neen day ànd ak ñun jihaati yonent bi daal di koy woolu daal dina ko wow Omar léegi yow am nga doom yoo xam ni nii mat nañu jihaat te yow xaal bi nga toll yàlla teggil na la jihaat ndax suñu borom mu ne wa ma alal wa ma alal xaraji mi ngi noonu laysa alal ama xarajun wala alal maridi xaraji wala alal araji xaraj wala alal maridi xaraj mi ngi noonu loolu la yàlla wax laysa alal ama xaraj wala alal araji xaraj wala alal maridi xaraj suñu borom nee na ka nga xam ne daa gumba ka nga xam ne daa lafañ ka nga xam ne daa feebar su jihaatul it loole moom topp mu ko ci dara kon bàyyi leen bàyyil rek nga def li la say doom wax mu ne ko hee yow mi yàlla yónni dama bëgg nga wax samay doom ne leen man sama àdduna li ma ci yàgg li ma ci yàgg yaakaar mooy dee ci yoonu yàlla ey waay nañ ma bàyyi ngiree loolee ma yàgg yaakaar yàlla wërsëgal ma ko yonent bi yàlla ne ko yàlla dana la ko defal woo doom yi ne leen bàyyi leen ko bañ demee ca xare Uhud yàlla dogal na fa la daanu heure bu la yàlla yóbboo Madina nga dem ca fa ñu suul waa Uhud xamal ne jàmbaar ma nga fa tëdd di Anas ibnu Nadr mooy jeune boobu ma leen wax sànq di Umar ibnul Jamuux mooy kooku ma leen wax sànq doonte ne seen sang ñoom ñépp mooy Hamza ibnu Abi Talib ibnu ibnu Abdul Muttalib ma nga xam ne mooy bàyyi taxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñépp ñi ngi tëdd foofu radiyallahu anhum mbokk laa ilaha illallah mi ngi noonu ba mu demee ba sax ca xolu sahaaba ya ñu xam ne nag yàlla moomu ñuy jaamu kim leen yónnee mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla boobu yeggoon na ci ñoom gënal leen seeni ndey seeni baay gënal leen seeni bakkan gënal leen ndox mu sedd guy ci jamonoy mar mu tar lool ca loolu it dañ koy jaamoo yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na amul kenn kuy ca mos cafka ngëm yàlla a mbokk julit ndekete ngëm yàlla daa am cafka goo xam ni dangay dem ba mos ko mu dugg sa biir xol yal nañu yàlla mosloo cafka ngëm yàlla nee na amul kenn ko yegg mos caf ka ngëm yàlla lu dul yàlla ak yonent bi ñoo koy gënal leneen lu dul yàlla ak yonent bi nañu dellu keroog bi yonent bi jëkkee jóge madina jëm makka ngir umra si ci li ñuy tudde sulhu hudaybiya muy la pacte de hudaybiya waa makka yónni nañ ay ndaw ngiree delloo ko gannaaw bokk na ci kiñ mujjoon a yónni muy urwata ibnu mas'ud as-saqafi bim ñëwee toog ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba bëggu ko wax ak moom mbir ma sottiwul ba mu delloo ci waa Makka nañ déglu lan la Urwa wax ak ñoom mu ne ay yéen waa Makka xam ngeen man may kan dem naa toog ak buur ba nga xamee ni nii moom moo jiite waa Ruum toog naag ka nga xam ne nii moo jiite waa Najashi mooy waa Éthiopie di Najashi toog naa ak ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite waa Faris amul benn buur ci àdduna bi lu dul toog nag moom waaye maa ngi leen di seedeel ne ni ma gisee saxaaba yi ànd ak yonent bi niñ bëggee yonent yàlla Muhammad musuma gis buur bu ko ay ñoñom bëggee ni ñi déggeele yonent yàlla Muhammad musuma gis ay nit ñu ko déggeele seen njiit wallahi buy wax ñoom ñépp dañuy jàtt seen loos kenn du siggi lu mu dégle dañuy jëkkante bay mel na reyante ngir def ndigal la loolee ah amul lu muy xaaxtandi ko wala di taftal tafli lu dul jëkkante nañ ko ngiree bëgg gañ bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li ma leen di dégal mooy fexe leen négocier ak moom waaye bu ngeen xeexee ak moom du ngeen ci génn de ca la waa Makka dooga yónnee beneen ambassadeur bu ñu wax Suhaylu ibnu Umaru kooku moo ñëw négocier ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam négociation boobee yàlla mën na def ñu dellu si ci waat ci yeneen i waxtaan waaye lañ ca doon tiire rek mooy sahabatul kiram ni ñu meloon ci yonent yàlla bi ca mook ñook moom ñoo bokk juddu bokk yaru lan moo yóbbu kon xaal boobee mooy bañ demee ba dégg laa ilaha illallah te ñu xam ne jaamu googee duñ ko jëli lu dul ci yonent yàlla bi yonenti yàlla bi gënaloon leneen lu dul loolu mi ngi noonu tey jii boo dellu woon maa ngi lay wax lii di xare uhud laa lay wax sànq dellul gannaaw tuuti ca keroog xare badr ba yonenti bi alayhi salaatu wasalaam génni waa ansaar ñoo ne ko woon kaay ñëw madina daan la sàmm ni ñuy sàmme suñu njaboot yonent bi gàddaay fekk leen tey nag yonent bi génn na madina ànd ak ñetti téeméer ci ay sahaaba tey waa makka ñoom jóge nañ ca makka ak junni nit ngir daje ak ñoom di benn situation boo xam ne kenn waajulu ko woon yonent bi alayhi salaam ne waa sahaaba yi luy seen xalaat lu ñuy def ba coow la bari lañu gis kenn ca sangu waa ansaar di saad ibnu muaz boobu ma la doon nettali sànq ne moom moo dajeeg anas ibnu nadr daa dina ko ay yow mi yàlla yónni xanaa du yow danga bëgg wax ci ñun xanaa du ci ñun ngay waxi xamal ne day yow mi yàlla yónni ñun day boo ñu santoon nañu jóg leen ngeen jéem a xar géej gi xuus ko ñun waa ansaar ñépp dañ ànd ak yow kenn du des gannaaw xanaa lu dul suñuy bakkan des ci loolu lii mbokk kon ñu bàyyi ko xel bu baax ci laa ilaha illallah bu saxee ci biir xol ana fan lay yóbbu doomu aadama bi ca la nga xame ni nii moom mooy digganteem ak boroomam su ko defee mbokk julit laa ilaha illallah mi ngi noonu ngalawaay niñ koy waxee ci làmmiñ yi nañuy fexe mu sax ci biir xol yi jubluwaay ba mooy lan mooy ay yàlla kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul yow sab jaam la gumba naa tëx naa ci leneen lu dul say ndigal duma jëfe lu dul say ndigal loo ma tere danaa ko bàyyi moom la suñuy yonente sallallahu alayhi wa sallam doon ñu wax ci loo xam ne buxaari ak muslim solo nañ ko inna allaha harrama ala nnaar man qaala laa ilaha illa allah yabtagi bi zalika wajha allah suñu boroom araamal na ci safara koo xam ne bi nga naan laa ilaha illa allah yaa ngi ca sakku mooy yàlla subhanahu wa taala gërëm la ci xam ne yow mii kat dogu nga ci ne adduna bii ngay dund amul lenn loo ci fas yéenee defeti lu dul lu neex yàlla amul lenn loo xam ne nii ndigal la bu jóge ci yàlla mu neex la ak mu naqari la lu dul nga jëfe ko ay yéen bokk julit xamal ne laa ilaha illallah yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégal nañu ci nee na man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illallah daxalal janna képp koo xam ne li nga mujj a wax ci àdduna mooy laa ilaha illallah booy dee di tabbi aljanna moo tax bu la yàlla nattoo nga dajeeg koo xam ne day sukuraat ngal la waay nee ko ay fat caam ay moodu saw waxal laa ilaha illallah su waxee laa ilaha illallah ñépp noppi su waxee beneen wax ñu fàttaliwaat ko laa ilaha illallah ngir mu deeyaale kaddu gu màgg googe nga xam ne moom mooy kaddu laa ilaha illallah mbokk laa ilaha illallah googe gis nañu ne ca la gën a màgg ci li ñu yaakaar ci yàlla subhanahu wa taala di ñu ca texeel àdduna di ñu ca texeel allaxira di ñu ca nangul la nga xamee ni ni moom mooy suñuy ñaan moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni amul benn jaam boo xam ne dana taxaw wax laa ilaha illa allah bum jële ci biir xolam lu dul yàlla subhanahu wa taala dana ko ubbil place boo xam ne nii daañ ko ko fa dencal ca la nga xamee ni nii mooy ci arsh ah di nangu ay ñaanam fii ak delluwul di def ca bàkkaar yu màgg ya lii mbokk kon comme dañoo bëgg waxtaan yi di ko yemele ak yéen ci trente minutes ngir bañ a yokkatloo nit ñi loolee kon mooy suñu ñaareelu bind ci kaddu gu màgg googe nga xam ne mooy kaddu laa ilaha illa allah ah di ñaan yàlla subhanahu wa taala moom mi ko def tax jullit ñi di ci texee àdduna di ca texee allaxira yal na yàlla saxal ko suñuy làmmiñ saxal ko suñuy xol yal nañu yàlla wërsëgal ñu dajeeg moom ci laa ilaha illallah yal nañu yàlla dekkal ñu ànd ak mbooloom laa ilaha illallah yàlla defal ñu aafiya fi dunia wal axira mi ngi doon mbokk jullit wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh